dëkk yëpp am nañu ay jafe-jafe waaye ñoom seen bos kenn ku nekk sa bos ni mu tare yaa ko xamal sa bopp seen jafe-jafe yi métti na parce que jaax na ma rek à titre d'illustration saako ceeb buy jar vingt cinq mille Guinée Bissau déjà Sénégal diis na ci ñun rawatina foofu parce que xam naa ne bu ñu xooloon tey ci moyens salaires yi fii la ëppee donc métti na également ci ñoom am nañ également yenn problème waaye mag bi ñëwee dañoo xool xayma li nga xam ne lii mooy convention bi doxoon suñu diggante ak ñoom te ñaari ministre yi ñu jiitu ci poste yi signé woon ko en janvier 2021 léegi nag bi ñëwee xool nañ ko xool lépp li nga xam ne lii peut-être mi ngi sooxe ci convention benn bu ci nekk nga xam ñu toll euh, am na daanaka lépp li nga xam ne lii mi ngi woon ci convention bi waxoon naka la ñu war a mën a jëflante ak ñoom du rek ndimbal jëm benn sens kenn ku ci nekk am na loo war a mën a indil sa morom ñoo am na lu ñu mën a indil ñun aussi am na lu leen mën a indil donc loolu mooy loolu la convention bi tëraloon ci wàllu xeetu euh, jiw bu ci ne euh, Sénégal yàgg na am na leen jàppale bii du guleet waaye bi ñëwee aussi wax nañu soxla yi ñu am parce que tey bëgg nañu euh, ceeb ceeb bu ñuy ji bëgg nañ sax ceeb boo xam ne bi ñu ko mënoon jox leen ko ceeb boo xam ne bii tey population de ji da koy mën a jëfandikoo sur le champ waaye am nañ ñoom yàlla def na aussi am nañu suuf war nañu mën a bay nekk nañ condition yoo xam ne xaw na nu roog suñu yos pour lépp ku leen ci mën a dimbali ñu bay donc jël leen décision déjà ne dañ leen ci dimbali ci wàllu jiwu ceeb muy jiw boo xam ne bii institut de recherche moo koy joxe pour que seen institut mën ko continuer déjà loolu dafay baax parce que ñoom it peut-être que nibal bi ñuy def tey bu doon seen sago fii kii at ñu mën a autonome donc loolu mooy li nga xam ne dañ ko def aussi jox leen aussi jiw boo xam ne dañ ko mën a ji ren

ci tàng tàng bi am na aussi yenn appui yu leen def ci wàllu matériel yoo xam ne aussi ñoom danañ ko soxla euh, peut-être que bu ñu mënoon lépp lu ñu demande sax danañ ko def waaye danañ am loo xam ne mën nañ ko def ci ndimbal ci lu ñu am aussi nag bu loolu weesoo il faut aussi ñu dimbale leen maanaam ndimbal bi waxta yem ci tey rek ndimbal bi nag pour mu mën a gën a continuer il faut ñuy xool. lëkkaloo bi dem ci institut recherche parce que mooy tax ëllëg ñu mën a def seen semence yu bopp bañ tout le temps di dellusiwaat Sénégal pour di wut seen i jiw xam nañ li ñuy ji am na loo xam ne lii mën nañ ko jëlee fii ñoom ñu continuer ko boole kook assistance technique boo xam ne bii ñun am nañ ko te ñoom amuñu ko ñu mën leen a fekki foofu dimbale leen ci. am na aussi loo xam ne lii mën nañ ko def ci wàllu horticulture parce que ñoom am na peut-être aussi lu ñu am te amuñu ko e-, expert bi fa bi dem Guinée Bissau wax nañ ne Guinée Bissau développé nañ fa trop. agriculture euh, culture maraîchère ci dëkk dëkkuwaay te dëkkuwaay te fii fii yaakaar naa ne bi ndox mi gënee seer lop la ko nit ñi bay donc loolu aussi am na solo muy loo xam ne li expérience boo xam ne ñun mën nañ fay mën nañ fay jëlee dara amna également euh, rôle bu am solo boo xam ne bi ANCAR joué na ko pour fexe ba lépp luy jumtuwaay bu bees mu fexe ba baykat yi xam ko loolu aussi danañ ci collaborer ak ñoom pour que euh, affaire bi du yem rek ci wut jiw ay wut jiw xool aussi ni nga ko mën a vulgariser ba mu dem ci ci ci ci baykat yi loolu mooy li nga xam ne li moom la ñu tënk donc action tout de suite ak action yoo xam ni dañ koy topp aussi am na aussi euh, benn xeetu dimbalante bu ñu war a mën a def ak ñoom pour que ñu mën a préparer euh, Dakar 2 bu fekkente ne mënoon na ñu indi seen dossier ñoom it gannaaw président de la république dafay invité kilifay adduna bi invité bi président Badd ñoom ñaar ñu koy organiser euh, pour xool naka lañ war a mën ñun ñëpp ñu jàmmaarloog euh, coono yi xam ne yi moom la ñuy am depuis bi Covid bi ñëwee bi nga xam ne bi guerre Ukraine bi ñëw na fi pour que Afrique ñuy mën a bay li nga xam ne lii moom la ñuy dundee.